alors Cheikh Mbacke ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Aïda. di nuyu internet yëpp rawatina di nuyu waa Sénégal di leen jaajëfal bu baax a baax. Ah, di santaar yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñu ñaari waajur di gërëm baax Cheikhul Khadim waaw bis bi dafa nekk bis boo xamante ne bis bu nu ñor la bis bu rëy la ci bu la ci ñun ndax kan la ni sargal Cheikh Amar tey nee naa leen bis bi fetalu ñaari ngémmil laa ci ku ma xam-xam ma ni euh, Papa Diouf le leader de la génération consciente ci estapa laa bokk ñu ne deetawaay may porte parole Cheikh Amar ñëw ci bis bi moo tax ma ne tey fetalu ñaari ngémmin laa fi ñëwee kii nga xamante ni mooy Bamba Faye def lu rëy dunne guleet nag yàgg na ko def kon bu jëlaatee ay édition édition di ci sargal Cheikh Amar dañ cee ànd ak mbégte mbégte loo xamante ni am na fu mu tàmbale mais amul fu mu yem Cheikh Amar jàmbaari Cheikh Saliou Mbacke ji Amadou Matou Baba ak Madina Matou Baba càmminal ngay Ali borom jaam ñi tagal kumbanaat kooku maam ju ma am wàlliw la maam ju mu mës a am rek dar na rasulilaay kon moom bu ñëwee dara Cheikh Saliou Mbacke boroom jàmm ak jamono boroom jàmm ak yërmande a ah, nii rek la mën a demee gileem a dellu gànnaar ñu koy ñaanal nag yal na yàlla guddal fanam moom Cheikh Amar yal na yàlla wéral ko tey naa ne leen saal bi ay soppeem ay mbokkam mbokkam rek ñoo fi ne délégation bi bu nu waxee euh, waa kër Abdoul Kader Ndiaye ñi ngi fi Ibrahima li mi ngi fi ànd ak euh, soxnaam Soukayna Diallo ah grand bii bi Cheikh Mbacke Gadiaga ñëpp a ngi fi waaw madame Mbacke tamit Fatou saw yabal délégation bu rëy kon bis bi daal dafa nekk bis boo xamante ni euh, ñàkk cee ñëw daal wóorul waaw. Cheikh Amar nag nekkoon koo xam ne nag artistes yi nag dañ ko doon way mais nag léegi nag wax dëgg yàlla ba ñu gisee sax sargal bi xaw nañoo tiit. boo gisee. bu ñu gisee sargal bi sax xaw nañoo tiit nag artistes yi dañoo jékki-jékki rek bàyyi ko bàyyi ko waaw damaa jàpp ni dafa tombe woon ak Covid bi rek feebaram bi. dafa tombé na Covid bi rek mais euh, ku mel ni Papa Diouf mi ngi koy way ba tey am na ñoo xamante ni ay xaritam lan donte ko waynu ko ñu ngi gisanteeg moom ku mel ni Mame Gor Diazaka ak ñeneen ak ñeneen. gis nañu am dañ koo bett xëy na dafa waxee euh, noo xamante ni bakkanam la waxee rek wala mu waxee xër waaw mais Papa Diouf daal yàgg naa way Cheikh Amar ba way ko morceau boo xamante ni wër na àdduna. Euh, du ko studio di ko génneel album boo xamante ni way ko ci benn morso bu génnee dinañ xam ni xaw ma kan de waaye Pape Diouf bokkul ci ñu ko boot di daal waaw vraiment Pape Diouf sax nekkul nit kooku non non moom féet moom féetewul foofu moom nga am mu way la nga nekk fi mu way la nga dem mu way la non non non. moom nit ndax moom bu lay way dalay way rek vraiment ñun ñi nga xamante ni ñoo ko wër ñun ñëpp yorunul suukar màdd te fu mu yuuxoo yuuxunu waaw loolu nag yàllaa ko ko mën loo muy foorom waaw àdduna moom dara nekk fi rek lu dul lu baax gémmiñ ngay wax lu baax ak gémmiñ ngay wax safaan boo ci waxee lu baax yàlla bindal la tuyaa ba wax ci lu baax loolu moo ëpp solo yeneen yëpp c'est des détails waaw mi ngi sant yàlla bu baax a baax na ma joxe woon euh, internet yi bi bi ma bi bi soog bi amee ñu jël ma en direct Cheikh Sarr maa ngi koy nuyu de passage jël ma en direct ne ma Euh, ku mel ni yow tey bu Cheikh Amar accidenté te te te te woowunu la nga wax nu bu boobaa du safe booba maa nga jëm principal ànd ak Abdoul Kader Ndiaye sama frère Cheikh Sarr woo ma en direct ma xamal ne leen mi ngi sant yàlla mi ngi tane bu baax tey jii tamit la gën a santaat yàlla mi ngi ci ay activité am toog làqatu daal di liggéey li mu war a liggéey waa ñun ñu jugee ci moom kenn ku nekk ci ñun ñëpp waajal nañu am na ci loo xamante ni <laughs> bu existé wul du ko mën daal mi ngi liggéey nekk ci li mu nekk di liggéey booleeg patak organisé bu yàggul dara rek maa ngi nuyu xalifa bi Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg tamug wér ku ne gis na bi mu ko wooloo la waxtaan ak moom Cheikh Amar yéene ji ma am ci université yéene ji ma am ci umul islamique dañuy ñaan yàlla mataleel ko ko mu yeggale ko ci bisimilah mu dugg ci bisimilahi rahmaan eggalee ko alhamdulilahi rabbil alamin di jaajëfal waa Sénégal di leen wax ne leen yéen loo leen baaxul yéen moom mooy togg boo togg ba mu neex nga def ci yàpp def ci xuluñe def ci lépp bu Sénégo ñëwul du xoromu non loolu moo am Sénégo non man damaa yor site internet keneen ak keneen yoroon site internet mais Sénégo fu mu dem a gëm fu mu demut nan ko ko nangul loolu la yàlla dem